nee tey bis bu tiis la. ci ñun ci ñun. waaye bisu mbégte la. ci ngërëm. ci ngërëm. ci ci ñun. ndax kii fi jóge. ndax kii fi jóge. buñ doon wax sof na. buñ doon wax sof na. waaye sos na. waaye sos na. te loolu rek mooy mbir mi. te loolu rek mooy mbir mi. gannaaw yàlla dogal na nag. gannaaw yàlla dogal na nag. démb bi mu amee. سيرن مامور توباتول موم سيرن عبد الخف سيرن مودو مامون سيرن ساليو اك سيرن ساليو لاج ما و لاج نيو بوك ليغي بي نيو بوك ليغي بي ني واخ نانا و سيرن بي ني واخ لي نا و سيرن بي ما و سيرن منتخا ما و شيخ محمد المنتخا واخ ما نيما ما واخ ما نيما شيخ عبد اللطيف سيرن شيخ عبد اللطيف دا نيو دا نيو اغال ليب اغال ليب يالا دوغال يالا دوغال batin fenti batin baatin far serigne Cheikh far ko andil bopam far serigne Cheikh far ko andil bopam lolou lu la. lolou lu la. ko am jangatam gem gem ko am jangatam gemar serigne Touba. war nga gema gëna gemar Cheikhul Khadim. war gemat ko ku am pass pass ci serigne war a ku am pass pass ci serigne bi. kon sëriñ Mamoun ku am pass pass kon serigne Mamoun ko ku am pass pass la. man mi seqoon ak mom man mi seqoon ak mom mak serigne Cheikh far bokkat auto mak serigne Cheikh far bokkat auto war ak agsi fii. war ak agsi fara agsi fi. loolu day wane ne. loolu day wane ni. ànd gi mu àndoon ak Serigne Mountakha. ne ànd gi mu àndoon ak Serigne Mountakha. ànd gu wóor la. ne ànd gu wóor la. ànd gu pas-pas la. ne ànd gu pas-pas la. boo xam ne da koo gisoon ci boo xam ne da koo gisoon ci moom. te ku ne sañ na loolu. te ku ne sañ na loolu. waaye koo xam ne dafa liggéey loo xam ne. waaye koo xam ne dafa liggéey loo xam ni. man nga koo seere. man nga koo seere. ndax wax nañu ma ne. ndax wax nañ ni ma. jumaa ja jumaa ja. nee nañ àgg na. nee nañ àgg na. bala 11 xaw ma la 13 lañ ko waroon a ubbi. bala onze wala la 13 lañ ko waroon a tijji. le 13 la ko sëñ Muntaxa joxoon mu war koo tijji ndigal. loolu nag sëñ bi. loolu nag sëñ bi. mooy buñ doon xool ku dugg àjjana. buñ doon xool ku dugg àjjana. da ngay xam ni moom.